waaw asalaamaaleykum mbokk internautes yu Diégo Parle Foot yi maa ngi leen di nuyu di ziar j'espère que yéen si jàmm bu baax a baax di wax képp koo xamante ne gan nga ci suñu chaîne YouTube bi duñ la wax lenn lu dul nga abonné rek te activer cloche bi loolu nga ñu mën a jàppale te également te nga commenter aimer vidéo yi c'est très important pour nous donc ñuy ñëw wax ci euh, gannaaw bi nga xamante ne Lamine Camara euh, FC Metz tey na ko définitivement ba du ñëw ci suñu sélection U20 bi donc loolu moom c'est fait maintenant mënatuñ ci dara suñu meilleur jour bi nga xamante ne waa FC Metz tey nañ ko ba ne du ñëw euh, représenter Sénégal ci mondial bi maintenant nag li ñu war a def kan moo ko war a remplacer lañu war a wax kan moo war a remplacer le meneur le le métronome wala le maestro di milieu de l'équipe nationale du Sénégal il a été exceptionnel lors des qui euh, CAN et également lors de la CHAN donc on gis bon aujourd'hui ko remplacé dana trop parce que mom technicien ou équipe donc mom mo dan djel bal casser des lignes euh, nombre ci kaw donc et tout instant bi nag benn jour la ñu gis actuellement ni moom laa leen di proposer sax muy Aliou Badara Mané bi nga xamante ne ma nga actuellement ma nga fële ci championnat Brésil di ko toj macha allah techniquement il est bien il est vraiment day marquer des buts vraiment c'est un technicien bon xamante ne aujourd'hui manager comme jouer comme ailier et manager jouer comme également comme meneur de jeu et tout donc voilà quoi euh, man daal moom rek la gis euh, instant bi di comme option te mom instant bi ay rêvam yëpp mooy jouer instant bi mondial UVB et tout donc vraiment gis na que ne war nañ ko mën et que voilà il est très performant fofu non pour man Aliou Badara Mané Euh, c'est le choix parfait pour remplacer ki nga xamante ne mooy euh, Lamine euh, Camara lii laa leen indi loolu ñëw leen ci commentaire yi ngeen wax ñu xalaat ak seen gis-gis jaa ngeen